أعوذ بالله سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد نو ñëw تاي di leen تي ci yi nga xam ne nit ki war na du télé ci dundam yi ci bi ñu bëgg a baaxee nii képp koo xam ne yàlla def na nga taxoo ko di nga dund ba faatu too télé foo toll da ngay nekk góor da ngay yëg sa bopp fukki yëf la yoo xam ne maanaam lu jara lu jara def la bi ci njëkk mooy nit ki bu fekkee ne euh, sëy na ba noppi mu raxasu ba set daal di naan ndox mën naa sax fa mu fa mu pare rek mu naan ndox mu bari raxasu ba set loolu képp ku koy def incha allah suñu borom dalay may ngóora bu sax beneen bi képp koo xam ne waaj nga bu bëgg a sëy nga lekk banaana avant ngay sëy soo sëyee ba noppi itam nga lekkaat banaan door a tëdd lol koy ya, def itam sa ngoro mo na fe nek ba ba nga faatu te doo ko ñàkk beneen bi kep ko xamne di ngay faral di masser sa aura ak karité tele du la yomb manam diko def diko masser ak karité so koy masser nag ko masser tolo 2000 3000 minutes trois minutes ba quatre minutes euh, foo see itam ba pare nga masser ko lolé tam lu baax la ci ci góor dana waral nit ki du tële insha allah ba ca topp euh, ku jël tam tullu na ak karité boole ko di ko maase sa awra daf koy dëgëral waaw yii tam képp ko xam ne boole di ko def dafay dëgëral awra loolu ñuy wax ibul maanaam euh, ibul xabatu sawda yiwul xabatu sawda moom itam lu am solo la ci góor kuy def euh, une heure de temps avant bëgg a sëy wala trente minutes rek nga maas ko ci maas ko ci ci saa si day jug taxaw waaw ñi am problème mu jug la ñu ko dee def rek day tax mu daal di jug taxaw beneen bi kuy faral di lekk gerte kemb euh, dana tax man yoom dana bari kàttanam tam dana yokk ndax mag ñi bu njëkk dan daan wax naan maan yu dafay kii maanaam euh, gerte kemb képp koy lekk day yokk sa leer ndax ñoom seen maanaam olof dafa yaarame ba nga xam ne am na yoo xam ne du ko mën a wax bu ko defee da koy kàll su waxee loolu mooy leer gi mu si jublu mooy yokk yokk maan yu góor da si jublu képp koy def incha allah sa maan yu dana bëri te incha allah soo ko dee def euh, dafa yokk sa kàttan bu baax a baax lu mel ni ñàmbi bu ñurul ñàmbi bu ñurul euh, di ko lekk lu bëri dana waral nga bëri ndox dana waral nga bëri kàttan lu mel ni laaj képp koy lakk di ko lekk maanaam du nga koy lakk bu ko defee boo paree xet gi day deñ du ba pare boo ko dee faral di lekk lu bëri day dëgëral maanaam awra góor incha allah képp koo xam ne yaa ngi naan lem lem day téye sa sa ndaw loolu moom ku ñuy wax Ibnu Sina daf koo wax képp koo xam ne yaa ngi def bés bu nekk nga naan lem kuddu lem dafay sàmm sa ndaw waaye lu baax na dafa yomb fu ne nit bu commencé woon tey pour mu saxal ko mooy jafe waaye lu jara saxal la képp koo saxal rek incha allah day day téye sa ndaw bu fukkeel bi reere cere cere lu baax la moom tam dana jox góor kàttan bu baax a baax léegi nag ñu ñëw ci fukki yi nga xam ne tam nit ki bu bëggee màggi taal ngóor da koy da koy bàyyi lu ko may bu ko dee def rek day ñàkk ngóoraam lu mel ni ki euh, ndox mu sedd képp ko mën a mën a bàyyi ndax moom bë bëri na góor yu jàmbat euh, biir bu rëy wala di jàmbat euh, ballonnement wala jàmbat seere wala sax di jàmbat awra bu dellu fekk ndox mu sedd bëri boo koy naan daf koy def lu mel ni ki lu mel ni extant yi waaw extant yi lu mel ni cigarette lu mel ni café bu bëri lu mel ni ataaya bu fort yooyu képp bépp góor boo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo rek yàgg-yàgg da ngay tële ba ci sàngara tam képp koy jëfandikoo da ngay tële mën na la may kàttan ni nag soo nee ndaw soo ko dee jël waaw nga di ko jël yaakaar ne dafa dafa am njariñ ci yow ndax yàgg bi mu lay yàggal waaye bu yàggee rek mu lor la da tële lu mel ni ki masturbation xale yi yëpp nañ ko daanaka xale yu bëree bëree bëree bëri dañ koy def <coughs> bokk na ci yi nga xam ne dañ koy jàmbat lu bëri euh, xale yu bari dañ naan dañ koy bëgg a bàyyi waaye dañ ko mën a bàyyi te képp ko bàyyiwul di ko def doo màggataale ngóora daf lay kii xañ sa ngóora lu mel ni ki fo bu bëri maanaam fo képp koo xam ne da ngay mooy yàlla dëkkee ko xam ne jigéen ju ne ngay àndal eh, amoo ngor ci jigéen amoo ci sago yàgg-yàgg da ngay tële képp kuy fo di mooy yàgg-yàgg da ngay tële lu mel ni ki lekk ba suuf euh, dooru sëy lekk ba suuf ba nga xam ne daanaka sa biir dootul am sax espace bu ngelaw mën a jaar loolu koy def da ngay nëw da lay nëwal kàttan ci sëy ak tam euh, comme lu jigéen ñi xewal di màccal seen awra yi awra jëkkër yi loolu tam bokk na ci yi nga xam ne mën naa tëraloo góor waaw nga xam ne am na góor yoo xam ne dañ koo tàmm ba nga xam ne suñ ko defu rek duñu mën a sëy loolu bu yàggee mën laa tëraloo lu mel ni ki jëfandikoo suukar lu bari waaw suukar tuuti rek doy na ci waaye boo ko jëfandikoo lu bari rek bu yàggee fi nga xam ne fa ngay yëgee ngóor gi lay crypté maanaam góor lu weex lu weex a gën ci moom lu mel ni senjeng euh, ak yu mel noonu ñoo gën ci moom lu mel ni ngolomaar Euh, lu melni den gi dekk mo gën ci mom lu melni sukkar bu bari ak yu mel non waaw euh, lek tam yak bu duuf manam ñam bu bari dewlin wala bari graisse waaw ñam bu bari dewlin wala bari graisse yooyu tam bokk na ci nga xamne ne day diisal deretu da fay tax ay sitam dootul mëna développer deretam du daw bu baaxa baax yii lañ indi woon doo leen ko baax nga xam ne lu wér la loo xam ne képp koo xam ne taxoo nga di def li ma wax bàyyi bàyyeen di bàyyi li nga xamante ne moom lañ tere incha allah di nga màggitaal nga di wax waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu